الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وآله ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يقول شيء النواصب كي نصب فعل مضارع جانقون نشي فكو لن يخون نموم لدن يقول جانقون ينتين جكي فالنواصب ينصب في المدارة يخون عشرة فكو لن وهي أن موي أن walan ak lan wa isan ak isan wa kay ak kay wa laamu kay ak laamu kay wa laamul juxuud ak laam ak weddi wa xata ak xata jawaabu ak lañ tontee bil faa i ci faa wal waawi ak waaw ak ci aw waxoon nañ ne an lan isan kay ñooy na sob fi'l mudaari direct dégg kay nag waxna ne bu fekke kay gi natelo ci lam su boba kay gi nasabut fen mu daare waaye an guñ nëbbu nëbbu gu war mo nasab fen mu daare te pourtant kay gogu harfu ta'lil la mok lam ño bok te lan an gi lam gi an gi dañ koy nëbbu nëbbu gu dagan bu la neexee nga feeñal ko bu la neexee nga nëbbu ko comme ni mara nar a waye kay gi moom nëbbu gi da fay wax kon kay su fekke defo ci lam te natelo ko ci su boobaa danañ na sa fen mu daal bi ñëw gannaaw mais du kay gi moo ko nëbbu mais an guñ nëbbu gannaaw kay googu moo ko nëbbu jàngoon nañ ñuy nasab direct ñu ngi ñëw ci yi nga xam ne day day nasab fen mu daal ci an guñ nëbbu seen gannaaw jiitu dikk naa kay aqara ngir ma jàng aleen ma xam kam wax nañ na jiitu fen mu faayil la kay xarfu taalil ngay wax foofu kay xarfu taalil la dégg nga a fen mu daal mansuubun bi an mudmaratan wujuban baada kay aqra fi'l mudaari guñ nasab luñ ko nasabee an guñ na bu na gannaaw kay natay ga dégg nga mooy jiitu kay an aqra a ah, alaan moo waaye an gi feeñ an gi dafa war a nëbb kay xarfu ta'lil la faal bi damiir mustatir taqdiru ana alaan moom maf'uulun bihi dégg nga mu jàngale nag laamul kay mooy laamu ta'lil léeg-léeg ñi lañ koy tuddee laamu ta'lil ñi tuddee ko laamu kay kooku dafay ne sab fen mu daaroo waaye ci an guñ nëbbu gannaaw ga nëbbu gu dagan jëlastu toog naa li astariha pour ma noppalu man ngaa wax toog naa li an astariha pour ma noppalu an googu feeñ na wala feeñul xamal ne moo na sa mu daar waaye du du laam ki jëlastu fen maadi moom ñu war a sukkoon di tisaali bi taay mutaharika wa damiru muttasil moom ñu war fi maanaam rafi faa'il laam gi laam laamu ta'lil dégg nga astariha fi'l mudaari mansuubun bi an mudmaratan jawaazan ci an guñ nëbbu na bugg dagan ba'da laamu ta'lil kon an googu moo na sa foofu waaye du laam ga loolu la na mu ci laamu kay laamu kay mooy laamu ta'lil laamu sabab laam gi lay wan li tax nga def jëlaat su toog naa lu tax li an astariha pour mu noppalu an gi mën naa feeñ mën naa nëpp comme laamu laamu sabab la day wan li tax nga def dégg nga ni ko yàlla waxee ci alquran wa anzalna ilayka zikra li tubayyina linnaasi wàccee nañ ci alquran lu tax li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim pour nga leer li ñu leen wàccee ci ñoom laam googu laamu kay la tubayyina fen mu daara mansuubun bi an mudmaratan jawaazan ci an guñ nëbb nëbb gu dagan baada laamu kay mën nga wutee baada laamu taalil mën naa laamu taalil ak laamu kay wala man nasbi والفاعل مستتر شلت بين تقدير أنت لام جار فجر الناس اسم مجرور باللام وعلامة تجري الكسر زائر الآخرين loolu lay wax ne wa laamu kay ak laamu kay wa laamul juxuut ak laam ak weddi laam ak weddi dafay ne sa fenn mu daaroo liñ namm ci weddi gi moo di dàq laam ak weddi mooy laam ak dàq waaye moom dafay ne sa fenn mu daaroo ci an guñ nëbbu nëbbu gu dagan gannaaw laamu juxuut jàppal ne laamu taalil rek dañuy wax ne dañuy dañuy na sa feeñ mu daal ci an guñ nëbb nëbb gu dagan bu la neexee nga feeñal an googu bu la nga nëbb ko amaa yeneen yëpp daal yii ñu nar a jàng yëpp nasa buñ feeñlu mu daaro ñoom mais an moo nasa feeñlu mu daaro waaye an gi dafay nëbb nëbb gu war yeneen yi nar a jàng ci kanam yëpp laa mu moom an gi dañ koy nëbb nëbb gu dagan mën naa feeñ laamu juxuut mooy laamu weddi mooy laam ak dàq maanaam laam ak dàq nag foo fekk kaana daf kaana daf koy jiitu kaana guñ dàqee maa wala yëkkun guñ dàqee lam toujours da koy jiitu kaana guñ dàqee maa wala yëkkun guñ dàqee lam toujours mooy jiitu laamu joxut laam ak dàq ni ki daaw xana wa ma kaana nekkul yàlla li yuadibahum di leen waaji du du yuadib bu fen mu daarol dañ ko nasab lu ko nasab laam gi déedéet an guñ nëbb nëbb gu war gannaaw lam googu moo ko nasab mais gis luko jiitu kaana guñ dàqee maa moom foo ko fekk kaana guñ dàqee maa moo ko jiitu wala yekkun guñ dàqee lam boo ko doon i'raab maa gi maa naa fii rek kaana fi'lu maadi naaqis yarfa'u ismu wa yansibu al-xabar allahu ismu kaana marfuun alamatu rafi adam azaraqi laam laamul juxud yuazibu fi'lu mudaari mansuubun bi an mudmaratan wujuban ba'da laamil juxud walaamatu nasbi al-fatxa azaraqi والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو أي يعذبهم kulen mbugal allahu هو ولا إن شاء الله والها مفعول ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع ميم كده ولا نقول ورك تمام والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان كان الله أمن اسمه وهي خبر كما اللي يعذبهم جملة بو منك في محل نصب خبر كان كن فوفو لا مك جهور جلو جيتو ما كان جندا خيمه amma yakun guñ dàqee lam nag fa mu koy jiitoo mooy ni ko yàlla wax ne lam yakun illaahu li yaxfira lahum lam yakun nekkut allaahu yàlla li yaxfira di waa ji jéggal lahum ñeen laam googu dafay wane ne jéggal gi du am mukk laam gi lu mu dugg day wane loolu du am laam ak joxóot dafay dàq lam dugg li yaadi mooy mbugal googu moom du am dàq na ko li yaxfira lahum mooy jéggal gi du am dégg lam yakun illaahu li yaxfira lahum lam xarfu nafin la wajaz min wa qalbin يكون فعل مضارع ناقص يرفع اسمه وينسب الخبر دنگا مجزوم بلم ولا مرتجم السكون ظاهر على آخره فعل مضارع ناقص بعدين كو جسم لم دنگا وكسر لالتقاء الساكنين dañ ko kasran ndax ñaari sukun dañu wax lam ñu wax lam yakunillahu waaye lam yakun la waroon don allahu ismu yakun marfuun wa alamatu rafi addamatu zahira ala axirin laam laamul juxuud laamul juxuud يغفر فعل مضارع ومنصوب بأن مدمرة وجوبا بعد لام الجحود ولا نصب بألفت أذار الآخر والفاعل من مستتر جواز تقديره هو ليغفر كي جيكل هو موم دائما <clears throat> والجملة ليغفر لهم من الفعل والفاعل في معنى النسب خبر ليكن دائما خبر يكون جوب لام حرف جر هذا من المتصل مبني على دم في محل جر باللام والميم علامة الجميع wal jaaru majruur mutaalliqun bi yaxfir comme ni nga fi xamee ne fii dégg nga jaaru majruur nga aju ci yaxfira kon foofu loolu mooy misaalu laam ak joxoot laam ak joxoot mooy laam ak weddi loolu mooy moom feenu mu daara bi mu dugg da koy daf koy dàq doom am toujours kaana guñ dàqee maa daf koy jiitu wala yekkun guñ dàqee lam dégg nga waxataa xataa wax nañ laamu taalil ak laamu joxut ñaar yeneen juróom-benn des ndax jàngaloon ñeent yi nasab mu mudaari direct xataa moom dafay nasab mu mudaari ci an guñ nëbbu nëbbu gu war gannaaw xataa moom it pour mu nasab mu mudaari nag foo mu nekk xarfu jar boo xam ne dafa yore maanaa ilaa wala maanaa laamu taalil laamu sabab ñaar maanaa yooyu la yore bu dee maanaa ilaa lakin yàlla wax xataa yarja ilayna Muusa mën ngaa jël bu ne rek xataa yarja ila an yarja ilayna la waroon doon waaye an gi dafa war a mu yore maanaa ila an yarja kooku maanaa ila la ba mu ba ni Muusa delloo maanaam gars yi Muusa yi dañoo Muusa yàlla daf koy ci miqama ñu jaama xiram Haaruna Haaruna ñu ne ah duñ duñ ko wàññi mukk duñ bàyyi xiram gi lumay mooy Muusa dellu si ñun ay ila hatta harfu gaayatin wa jarrin bi maana ilaa ngeen koy firee ngeen koy iraabe yarji'u fi'lun mudaari'un mansuubun bi an mudmaratan wujuuban ba'da hatta wala nasbi alfatatu wa zaahira ala aaxiri dégg nga ilaa harfu jar na damirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jar bi ilaa Muusaa faa'ilun مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التحذر التعذر تمام hatta fofu mana ilaa la yore dégg nga bu dee xattaa gu yore maanaa laamu taalil mooy li nga waxe febnu aslim hatta tadkhul al jannat tekur ila an tadkhul jannat bo de rek tamit war nga jibul manam aslim hatta tadkhul ay aslim li tadkhul al janna jébulul pour nga duggu loolu firi mais kenn du ko firee aslim xataa tadxul jannata jébbalul ba ba ngay dugg aljana loolu wax jubut sax aslim xataa tadxul jannata jébbalul ba ba ngay duggee aljana loolu jubut dégg nga nga ne togg jëf yeeg jébbal yeeg yooyu fii de boo xasee dee pare nañ aslim xataa tadxul jannata mooy jébbalul ngir nga dug aljana kon xataa dana yore maanaa laamu taalil dégg nga dégg nga aslim fil amri moom nee la sukkoon وفعل من المستثنى من أن تقدر أنت حتى حرف جر وتعليل فنون noonu lañ koy تدخل في مضارع منصوب بأن مدمرة وجوبا بعد حتى ورمت بالفتح ظاهرة على آخره أسلم حتى تدخل وفعل من المستثنى تقدر أنت الجنة مفعول به منصوب ورمت بالفتح ظاهرة على آخره kon من ngeen a دينغا ne dégg من kon su من man ngeen dégg nga kiyel nga <coughs> kon man ngeen jàpp ne xataa nasabut fenn mu daaro direct waaye an guñ na bëgg naaw xataa moo ko moo ko nasab dégg nga laamu taalil nasabut fenn mu daaro direct an guñ na bëgg naaw laamu taalil na bëgg dagan moo ko nasab laamu joxut nasabut fenn mu daaro direct mais an guñ na bëgg naaw laamu joxut moo ko nasab mu ñëwaat si wal waaw ak waaw de wal jawaab ak luñ tontu bil faa ci faa wal waaw ak waaw maanaam arfa jawaab li mu bëgg wax mooy bokk na ci na fe mu daaroo waaw ak faa yi nga xam ne dañoo ñëw ci palaasu tontu dégg nga waaw ak ak dégg nga faa yu ñëw ci palaasu tontu dañuy saf fenn mu daara waaye ci an guñ na gum na buggu war maanaam faawu sabab ak mooy faawu sabab waaw maaya mooy waaw ànd ñoom dañuy saf fenn waaye ci an guñ na bu na buggu na buggu na buggu war ñoom balaa ñoo saf fenn mu daara benn si juróom ñeenti juróom-ñeenti jiitu la moom lañ booti mur wadon wanha wasal waarid li xaddihim tamanna warju kazaka nafyu xat kamula mur digleel foo moom amru dégg foo mooy mur digleel foo moom amru maanaam amru koy jiite moo koy jiite la ngeen jàngoo si ndax waa ji awal mooy almasbuqatu da wala talab talab nag juróom-ñett la nafi moom benn la talab bokk na si mur digleel digle talab la sàkku la ñaan war doo ñaanal sàkku la wan ha tereel sàkku la wasal mooy istifam laajte sàkku la wa arit dégg nga ñaaxal mooy ñaax gu ànd ak oyof sàkku gu ànd ak ñeewenti def ko nànk-nànk mooy arit li xaddiim def ko taxdiid mooy ñaax gu baax lii loolu mooy sàkku gu ànd ak xiir dégg nga te mën na mbébétal mbébét da koy jiitu warju wala xarfu yaakaar da koy jiitu après nafi doo ñëw juróom-ñett yi yëpp lu moom la ñu tuddee kon faaw sababiya fépp faaw sababiya mën a dugg rek waaw maa yee mën na faa dugg waaye ñoom tarab daf leen jiitu wala naf yi mooy juróom-ñett yi naf yi mooy benn boobu di kii misaalu faaw sababiya wala maa waaw maa yee bu digle jiitu mooy wax ji ma wax ne aqbil jiblul fa uxsina kon ma rafetal ilayka jëm ci yow wala nga ne aqbil wa uxsina ilayka ñaari benn kooku sàkkoo ko jiitu dégg nga أقبل فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدر أن تفا فا وسببها أحسن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فا وسببها ولا بالنسبة الفتاة وزارة على آخره تينا boo waxoon wu ofsina nag muy waaw waawu maxiya ofsina fen mudaara mansuubun benn mudmaatun wujuban ba'da waawul maxiya dégg nga noonu ngooy wa faa'il damir mustatirun taqdiru ana faa'il ofsina ila harfu jar kaaf damiru muttasil moom yàlla fata fi maxali jari ilaa loolu mooy misaalu faaw sababi wala waaw maaye bu ndigle jiitu bu dee bu dégg mm, nga mur bu ñaan jiitu mooy rabbi wafiqni fa amala saalihan rabbi yow sama borom wafiqni yàlla nga ma dëppaleeg njub fa amala kon ma jëf saalihan lu baax wala boog wa amala ànd ak ma jëf saalixan lu baax ñaare benn la rabbi munaadaa la xusifa minhu yaa un nidaa munaadaa guñ xasaf xarfu nidaa la mooy maanaam yaa rabbi moo doon cosaan la ñuy xasaf ko loolu moom dana dagan mansuubun bi fathatin muqaddara ala ma qabla yaa al mutakallim al maxduufa yaa rabbi la woon ñu xasaf yaa ga far dañoo xasaf yaa xoote ga xasaf yaa wu mutakallim ga yaa rabbi dégg nga kon dañ ko nasabee fataa guñ nattalee شي وين يا متكلم غني حضر للتخفيف ويفل منا من ظهر اشتغال محل بحركة مناسبة بيا المتكلم لكو تلفن ما يعرف يدبوك يا متكلم ربي مدافلا يا متكلم المحذوفة مداف إلي مبني على سكون في محل جر فين يسوى يا أملكو وفيق فين الدعاء على دينغ مبني على سكون فين أمر الرجلة دينكو تري الدعاء رواي فين أمر دينكو تري الدعاء غير تجين بس كي على دوكو ديجل دم كوين dégg nga moo tax ñu fi'lu du'aa moom ñaar sukkoon dégg nga wal faa'il damin muslim wujuban taqdiru anta wa nuun lil wiqaaya yaa gi damir muttasil moom ñaar sukkoon fi maal nas maf'uul bi rabbi wafiqnii nuun googu bu amutoon xaaf googu da nga ko kasra wafiqii parce que lu ñëw gaaw ma tëkkale dafa war a kasra nuun gi nag moo fegal xaaf gi kasra moo tax ñu dégg nuun wiqaaya nuun gi day fegal rabbi wafiqnii nuun gi moo ñëw moom jël place am kasra moom fegal. kii bàyyi amal bi mu sukun mujjëg amal bi fa amala wala wa amala bu dee fa amala nga ne alfaafaawu sababiya bu dee wa amala nga ne alwaawaawu maaya amala fen mu daaro mansubun bi an mudmaratan wujuban baada faawu sababiya bu dee fa amala wala bi an mudmaratan wujuban baada waawu maaya bu dee wa amala la cosaan li fa an amala hoon ak wa an amala dégg nga wa faali bi mustawjiban taqdiru ana saari an mafoon bi mansuubun wala wanas bi alfata azaira ala axri kon boobu lu ko jiitu ñaan fenn am gis ngeen waaw maay ak faaw sama bi fi ko ndigle jiitoo ak fi ko ñaan jiito dégg nga léeg-léegi tere jiitu ko mur wadon won ha tere mooy ni ko yàlla wax ne wala tatagaw bu leen bew dafa aaye fii ci loolu fa yaxilla kon mu wàcc bu dutoon alxuraan nga wax wa yaxilla kon mu wàcc ndax fu faaw bi dugg waaw maay mën na dugg ويحل عندك مواج فيحل لك مواج ويحل عندك مواج إيه. عليكم شيء غريب اسمه مر واجي واو لا لا لا لا هي تدغو فعل المضارع تدغو فعل المضارع مجزوم دعنا ب تدغو فعل المضارع مجزوم بلا نهي ولا متجزم حذف النون دعنا لأنه من الأفعال الخمسة خمسة مو بقى فعل جرمي والواو تميل متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل دنجا ولا تطغوا دنجا في حرف جر هذا من متصل مبني على الكسر في محل جر في وجار مجرور متعلق بتطغوا فا فا سبب واو واو معيار يحل في مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فا سبب ولا فا غفلف ولا بأن مضمرة وجوبا بعد واو معيار ولا واو غفلف على حرف جر كاف متسم من الدم في محل جر على والجار المجرور متعلق متعلق بيحل والميم دنجا علامة الجملة غدبي فاعل يحل مرفوع ولا مضرف الدم الظاهر على الدمة المقدرة على ما قبل المتكلم منع من ظهر اشتغال محل بالحركة المناسبة غدب مضاف له يا متكلم مضاف إليه ممنوع السكون في محل جر كن نون لنكوي i'rabeem mën ngaa wax fa yaxilla wala wa yaxilla mor wadoo wan ha dégg nga wasal laajteel sal mooy istifham ndax wa hal zaydun ndax zaydu fi daare mun ci kër gi fa azhaba ma dem ilay jëm si moom wala wa azhaba ma dem ilay jëm si moom kooku laajte la hal harfu istifham la zaydun mubtadaun marfuun wala mutrafi الدمة الظاهرة في آخره في حرف جر الدار اسم مجرور به ولا متجر الكسر زائر على آخره والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن نطلب ما كائن خبر مبتدا دائما فا فا وسبب بدون واو واو معيرة أصاب الفعل المضارع منصوب بأن مدمرة وجوبا بعد فا وسبب ولا بأن مدمرة وجوبا بعد واو معيرة بدون واو مفرد والفاعل ضمير مستدر وجوبا تقدر أنا والجار والمجرور متعلق به أذهب لول مي مثال استفهام و وصل وأعرض وأعرض wa arit وارج لحدهم دينغا بستوب موي العرض عرض موي غي ساك دارا بلينين ورفقن تي نوي بوي ساك دارا تي نوي لول مودي عرض نيكي الله الله الله تنزل الا لنج كوي جيفانديكو مو مو عرض باتو الا الا تنزل ناخ دو واتي ان الا تنزل كون ناخ دو واتي الا تنزل ناخ دو واتي عندنا فنون فتصيبا كون غا جوت خيرن يو ولا ورتصيبا غا جوت خيرن يو كو غا فاوسو بي فو بن سي جيتكو ألا أداة عرض جمتك إيجار الله تنزل فعل مدار مرفوع وعلى مطرف الدم متظاهر على عقلي من المستلزم وجوبا تقدر أنت عند ظرف مكان منصوب ولا متنسب الفتى الظاهر على عقلي وهو مضاف نادم متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه فافا وسبب إيه؟ بدي واو فتف واو معي تصيب فعل مدار منصوب بأن مضمات وجوبا بعد فا وسبب إيه؟ والفاعل من المستلزم وجوبا تقدر أنت خير المفهوم بمنصوب ولا متنسب الفتى الظاهر على loolu moom mooy ardu léegi-léegi dégg nga taxdiit jiitu leen mooy ñaax moom la na mu li xaddihim ñaax mooy na mooy nga sàkku dara ci ci ci ci ci xiir nga xiiraale ko ci sàkku sàkku dëgër ni ki halla halla akramta zaydan yashkura lu tee nga nga teral zaydu pour mu gërëm la wala boog wa yashkura ànd ak mu gërëm la xalaa adaatu taxdiit la jumtukaay ñaax la akramta فعل ماضي مبني على سكون الاتصال بتاء متحركة والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نطرتي في محل رفع فاعل dégg nga teewul nag moom dafa jàpp ne fenn amru dañ koy binaal sukkoon abadan su boobaa moom akramtu fenn amru moom nee la sukkoon al muqaddara ala axiri mana min zuhuriha as sukkoonul xaarit dégg nga karaahiyata tawalil amsal wala karaahiya ci tawaali arbaa arakatin mutawaliyaat ngir bañ ñeenti masque yu toppalante dégg nga ak dégg nga ak karamta dégg nga moom bi sukkoon aari rek dañ koy def dégg nga kawaali karaahiyata tawaali amsaal ak ramata ñetti masque yu toppalante foofu du ñeent sax waaye ñett lay doon loolu lay bañ moo tax mu def ko ak karamta waaye teewul nga nga def ko benn moom ñaar sukkoon moo gën a yomb parce que ñaari benn la ixtilaaf bu amul solo dégg nga وزيدا مفعول به على أكرمت زيدا مفعول به منصوب ولا منصب الفرز عراقي الفاء فاء سببية ولا الواو واو معي وظيفة واو يذكر فعل مضارع منصوب بأن مرمات وجوبا بعد فاء سببية وفاعل يذكر ضمير مستتر جواز تقديره هو لول nga loolu mooy kii bi mën naa nekk it tamanni mbébét mën na تمني jiitu wa alil xadim tamanna tamanni ولا بوك loo xam nekk layta lii maalan fa atasaddaqa minhu xaalis jafe la lool nga ne yellanti koon maam xaalis waaye saraxa ci mën ngaa def layta lii maalan wa atasaddaqa minhu ànd ak ma saraxa ci ñaaree mën naa nekk layta xarfu tamanni wa nasbin yan sabu dégg nga isma wa yarfulu xabar dafay rafaa isma sa xabar moom laam xarfu jaar wala yaa damirun muttasil moom naa la sukkoon fi maxali jaar bi laam wal jaar majrur mutaaliq bi maxzuuf fi maxali rafi xabaru layta تقدير موي كاين كبر ليت مقدم اي ليت لي ليت مالا آه، دينغ كائن لي دينغ كون جار مجي متعلق موصوف في محل رفع خبر ليت مقدم ومالا اسم ليت مؤخر منصوب ورا منصب الفتى الظاهر على اخرين فا فا وصوب وفر في واو واو معي اتصدق في المدار منصوب بان مدمات وجوبا بعد فا وصوب والفعل من مستلم وجوبا تقدر انا منه ميم حرف جر haa damir muttasil moom noonu dem fi mahalli jarri bi min faatu sadaqa minhu dégg nga defee waaw waaw waaw maa yéla dégg tamanna warju tara ji moo ci ji mooy sàkk loo bëgg loo yaakaar ni ki la an amaana man maanaam man bëgg naa uraaji uraaji ma delloon teeg laaj a cheikha sëriñ bi fa yuf himani mu déggloo ma al masalata masala mi bëgg naa di di di di wax ak sëriñ bi ba mu ba ba ma dégg masala mi loolu ñaareel loo bëgg nga koy def loo bëgg mais sàkku mbir moom bëgg laan la xarfu tarajin wa nasbin yan sabul ismu wa yarful xabar wala yaa ismu laan la moom ñu sukkoon fi mahalli nasbi وراد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة العاقلة والفاعل ضمير مستتر مجيب من تقدير أنا الشيخ مفهوم به منصوب ولا منصب الفرد ظاهر على آخره والجملة من الفعل والفاعل في معنى رفع خبر لعل فيفهمني من عليك ويفهمني من عليك الفاء فاء سببية ولا واو واو معية يفهم فعل مدار منصوب بأن مدمرة وجوبا بعد فاء سببية والفاعل من مسلم وجوبا تقديره هو دنجم ونون نون للوقاية وخنا للوقاية ليك واليا مفهوم به مبني على السكون في معنى النصب مفهوم أول والمسألة مفهوم ثاني منصوب بالفراء العراقي كن يفهمو دا فاي نسم نياري مفهوم دينغ لول موي ييغا خامني موي طلب طلب كوي موي مور وانها ودع وصل وعرض لحدهم تمنى ورجو يوي موي طلب دينغ كذا النفي نفي موم داخلا النفي دو طلب دا فاي داخ مبير مي يوي بو خوي فك اند خيت ساك دينغ نفيو من جيتو آه، فاو سببيه ولا واو maaya mom mo ci muju niki alquran wax ne la yuqdaa duñ doggale alayhim si ñoom ci ñoom fa yamuutu kon ñu de bu tu alquran nga fa dugal wa yamuutu alquran mom nañ ko wara jange rek lañ koy jange la la naafira yaqdi fi'lu mudaaro mabni lil majhuli marfuu wala mutarafi dammatun muqaddar ala alif wala boog laa kon yuqda fi'lu mudaaro mabni lil majhuli nga marfuu wala mutarafi dammatun muqaddar ala alif mana min zuhla at-ta'zur ala harfu jar dégg nga هادمير متسم من على كثرة في محل جربي على والدينغ والجار المجرور في محل رفي النائب فاعل يقدا جار المجرور جي نيونيك نائب فاعل يقدا لا يقدا عليهم والميم علامة الجميع فا فا وسببية بري واو واو مايلا يموتوا دينغ يموتوا في المدار منصوب بأن مدمتن وجوبا بعد فاو سببيه بدون ويموت واغوا او محيا يموت فن مدا منصوم بان مدمر وجوبا بعد واو نمتر جزا غاو معي ولا موت نصبي حسب النون لا نون افعل خمس يموت افعل خمس لا دين واي بري القران مون نكور جانغي رنگ خوي جانغي كون واو معي اك فاو سببيه فولن فك il faut amru digal jital len jiitu leen loo xam ne ndigle la wala tere wala loo xam ne eh, ñaan la wala loo xam ne làcce la xal nangam wala loo xam ne ñaax la ñaax gu oyof wala ñaax ñaax ku diis wala mbébét wala yaakaar loolu lañ namm ci tërëb wala boog foo dàq jiitu leen comme laa nangam nangam du am loolu lañ nangu ci namu ci dàq boo koy naxwaa di jàngal daf ne waa uma ye faaw sobe dañ da ko jiitu wala sàkku sàkku juróom-ñett yi ma wax la moom mooy daq mooy benn boobu dégg yooyu nasa buñ fenn mu daal waaye an guñ nëbbu seen gannaaw bugg war moo ko bi aw aw nga dafay nasab mu daal waaye du aw gi moo nasab fenn mu daal an guñ nëbbu na bugg war gannaaw aw googu moom moo nasab mu daal aw ولا موي رمانا الى الا موي لو موي الى موي جيم بو اللي لي نيو غنا الغي بي اوغي بن يون لاي ام مانا الا لو يري بو اللي لي نيو غنا اوغي نك نانك نانك لاي خيوي سبو مانا الا مانا الى جيم لاي يري نيكي لا قتلنا نار الكافر هيفي او يسلم اي الا ان يسلم لو موي مو جيبول فو مانا الا لا نامنا جيبول ليك موكو تاي او يسلم مانا الا لاي دون او ان يسلم لهون واي ان غن كاي دغ دغ غور لام غي موتئه للقسم دنج كو تك بور غي غن اقتلن فعل مدار مم على فتاليت سالي بن توكيد الثقيله دنج فعل مدار دنج وفاعل لم المستدل وجوبا تقديره انا ونون للتوكيد دنج اقتلن فعل مدار مم على الفتح دنج كو بنال فتح لتسالي لتساوي بنون توكيد ثقيلة وعنقد فهناك ضرب رفع في ما على رفي دخل فورا رفع بلتون النون والفعل دم المسلم وجب من تقدر أنا ونون للتوكيد والكافرة مفهوم بمنصوب ولا منصوب على فضل ظاهر عقلي أو عرف عطف يسلم فعل مدار دينغ منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو والفعل دم المسلم من تقدر هو أن يسلم هو معنى بمي أن الكافرة إلا أن yuslima ndax jébbalu mën naa nekk benn yoon bu fekkee jébbalu gi mënul nekk benn yoon nag su boobaa maanaa ilaa la yore ni ki la astashilanna assaaba aw udrika almunaa danaa yomb loolu jafe bu may am bébét baat bu gàtt ngi noonu ñu koy joxe misaal waaye bu am njëriñ ci dund nit ki bu ko jëfee la astashilanna danaa yombaloo danaa neexlu yomblu assaaba li jafe aw udrika jëm ba ba ma jot almunaa bébét mën ngaa xeexee am sa bébét ba nank nank la nga koy am ba mu jeex kon aw googu maanaa ilaa la yore dégg nga laam gi mu wattaatun lil xasam la dégg nga astasilan mu daaraw bam ñu àla fatali ci saali bi saqila fi ma ale rafi wal faal damir mustad wujuban taqdiru ala wa nuunu li tawkid la tasilan na danaa yombuloo asamba dégg nga bi mansubun wala munas bi alfata zaira laqi aw حرف عطف رجلين كيف يلعب مو أو يسلم أو أدركه أو حرف عطف رجله أو يسلم تمنون أو حرف فين أدرك فعل مضارع منصوب بأن مدمرة وجوبا بعد أو والفعل ده من المستلزم وجوبا تقديره أنا أو أدرك بمجر المنام مفعول به منصوب ولا منصب الفتى المقدر على آخره منام من ظهرها التعذر نور لنكي إعرابي كن أويت moom it dañuy nasab fi'l mudaari ci an guñ nëbbu nëbbu gu war gannaawam kon jàng nañ yi nasab fi'l mudaari lan izan kay yaa <coughs> aju jàng nañ ko yaa ci nañ ko bu defee ñu jàng juróom benn yu des mooy laamu kay laamu juhut xatta ak lañ tontee ci faawa wala waaw ak aw juróom benn yi ñooy nasab fi'l mudaari dégg faagi faawul fasiha an nawaasibu dégg nga <coughs> mubtada'un marfu'un ولا مطرف أدم الأزار العقلي عشرة خبر مبتدا مرفوع ولا مطرف أدم الأزار العقلي واو الاستئناف هي دمير منفصل مبني على فتح في محل رفع مبتدا دنگ أن حرف مبني على السكون في معنى رفع خبر مبتدا وحرف عطف اللان حرف مبني على السكون في معنى رفع خبر مبتدا وحرف عطف إذن حرف جواب مبني على السكون في آه، في محل رفع maa ngi jëm sax maatuuf ala an yooyu yëpp waa wala maatuuf كي حرف من على السكون في محل رفع معطوف على أن وعرف حرف اللام عرف مبني على دين اللام اسم مبني على السكون في محل رفي معطوف معي وقت لام دينغا اسم مبني مرفوع لام معطوف على أن والمعطوف على مرفوع مرفوع ولا مضيف أدم وزير أخي لام جيم اسم دينغا معطوف على أن مر والمعطوف على مرفوع مرفوع ولا مضيف أدم وزير أخي ومضاف كي مضاف إليه دينغا مبني على السكون في محل جر واو حرف عطف لا معطوف على ان والمعطوف على مرفوع مرفوع ولا مطرف ادم مزار اخره دنگ هو مضاف الجحود مضاف اليه دنگ مجرور ولا مرتر الكسر زار اخره واو حرف عطف تا حرف مبني على السكون في محل رفع معطوف على ان بريغي واو حرف عطف الجواب دنگ معطوف على ان والمعطوف على مرفوع مرفوع ولا مطرف ادم مزار اخره با حرف جر الفاء اسم مجرور بالباء ولا مرجع الكسر والجار مجرور متعلق بمحذوف نعت للجواب أي والجواب دين المتعلق بأجي أجو بالفاء دين المتعلق نعت لدون تشكي بالفاء والواو واو حرفاته الواو معطوف على فاء والمعطوف على مجرور مجرور ولا مرجع الكسر الظاهر على آخره دين واو حرف عطف أو معطوف على أن mom على السكون sukun fi رفع rafi denga lolou modi di be ci métti in uridu islam astantu wa tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh